live bu neex a neex tey nag ñu ñëwaat ak yéen fa yéene waxtaan ak yéen confinement bi da leen di may ñaari live par semaine les mercredis et les donc euh, vers vingt deux heures vingt trois heures heure de Dakar ma am benn benn faxamaan faxamaan moom laa moom laa njëkk jël ci live bi Daawud faxamaan bul ne fax bul ne faxamaan ay buzz ah mais bul ne faxamaan boo mais Daawud da daw non daw ma waaw mission mooy dox booy ah, dox mais yow fan nga nekk exactement. yaa ngi Espagne. waaw maa ngi Espagne. Espagne yaa ngi fay bëgg a yàgg de depuis combien de nga dem. dégguma. ah. dégguma de. ma ne kañ nga dem Espagne. dégguma man ma xool maa ngi koy maa ngi koy bëgg fàtte est fi ay cinq mois yooyu noonu su ma avion nga jël wala ci gaal yi nga jaar. ak am jot ak am jot. fii fii laa jaaree fii. non non nee lii dara kii wuñu ma xool carte d'embarquement la lii wóorul ana visa bi. lépp lu ma wax rek de léegi ngeen ñu waay yéen wàllu TV sonal ngeen ñu waay. leer na. waaw leer na leer na macha allah. yow kon c'est pour man xam nga comme yow gars yow rëg-rëg. ku wax daawur wax rëg-rëg daawur ak rëg-rëg benn lañu yaa rëg-rëg dafa ñeme ndox ah. dallu dafa ñeme ndox dallu nee ci gaal yi la jaaroon 2006 xaw ma moo tax man doon da nga ñeme ndox euh, moo ma ne mag ba tey yii nii kenn xamul si lu mu ne barki yàlla kan kon man dinaa sama benn mag ma bokkal ndey baay waaw ba tey jii kenn xamul si ne barki yàlla 2006 nga ne sa mag bi nga bokkal ndeeg bàyyi dafa dugg ci gaal yi ba léegi kenn gisaatu ko. ba tey jii may wax yow kenn xamul si lu bëgg jaaraat si gaal yu ah, loolu yow. Ah, nga dëgg de lii rek exemple la. li nga wax noonu doy na waar kooku yàlla nañ ko ah. gis ak jàmm yàlla na feeñ ak jàmm. yàlla nañu xamaat ci lu mu ne amiin amiin waay. allah parce que tamit yàlla mun na lu ne. waaw yàlla yàlla nga dox biir Espagne ba jékki-jékki tasante ak moom yàlla nga dox biir Espagne ba jékki-jékki tasante ak moom mu nekk ci jàmm ngeen retrouvé waat ko incha allahu rabi euh, Daawud. kon bu ñu jógee ci loolu. Euh, ma ma laaj la benn mbir. yow duma la tooñ naan lay Espagne loo fay def ak yu mel nii yëpp duma la ko laaj xam naa yaa ngi xar matt foofu. macha allah loolu baax na <laughs> léegi li ma lay wax nag mooy daaw ku ne xam na sa diggante euh, sa diggante rëg-rëg mais maam mais lu ma leer lu tuuti acca bismillah leeralal koro yow daal yéen bi ngeen doon waxtaan mm-hmm. maa ngi lay déglu maa ngi lay dégg nga ne euh, rëg amul ay mag yi topp si ginnaawam mm-hmm. xëy na euh, ñun xale ñun ngay gis xëy na. yaa may dégg ñun xale yi ngay gis ñun xale yi. dëgg la ñu ay xale lañ. ñun xale yi ngay gis mais wallaahi am na mag ay mag ñoo ñu doole si ginnaaw. ay mag yu bëri ngi topp ci ginnaaw Reug Reug. waaw yoo xamante ne làmb xam na leen bu maax sax. Hmm. waaw kañ kañ la ci mën a tuddal. Baye Baye Jiwanda. Hmm, kook lébu la. lébu waaw lébu pire. ak kan kooku Boucar dem demoon na si moom. Boucar demoon na si moom. am na benn boy bu ñuy wax Ran Diop papaam tamit. Uh-huh. ko papaam daal la xam naa ñu mag ñooñu ñëpp ñu ngi suñu ginnaaw de. xam nga ñun bon kenn weddiwul ni mag yooyu sax xam nga mag moom en général macha allah mën naa bàyyi ci réew mais boo gisee ñu naan la mat. waaw mag mag mag bu nekk ci ginnaaw mbër mooy mag boo xamante ni ub na làmb wala bu ubul làmb itam maanaam ancienne gloire la xam nga ancien lutteur ak ancienne gloire dafa ute ñu ngay wax ni xaw ma leen amaana sax toj nañu làmb parce que des fois nga gis mbër bu toj làmb te siwul mbër boo xam tojoon na làmb mais ñun jamono ji ñun xamuñu ko loolu bari na parce que ñun démbale ñu mais ñun tey lañu am na ñoo xamante ne démbale ñu mais boo déggee ñu naan mag nekkul ci ginnaawam tey xam nga làmb dafa baaxoo ñu gis champion yu mag yu luqeeku champion yu mag yu luqeeku boo jëlee diggante deux mille deux mille ba deux mille vingt champion yu mag yu ci luqeeku yëpp da xool nga ne ah Eumeu Sène da nga doon danoon ñëw nga gis Mohamed Ndao Tyson ci ginnaawam nga gis Papa Diop Boston ci ginnaawam nga gis Balla Gaye numéro un Balla Gaye numéro deux nga wëlbatiku gis ku mel ni Yékini nga gis Amadou Kati Diop gis mbay Cissé gis mbay Diagne. xale yu Ndakaaru yi gis xale yi faas yi ci ginnaaw Yékini gis Robert Diouf. mais Mouhamed Ndiaye Robert. dëgg nga jël Gris Bordeaux nga gis champion yu bëri ci ginnaawam nga jël Modou menn Modou Lo sax loolu da ko ko ci doon critiquer benn moment ne Modou amul ay mag yu nekk ci ginnaawam. waaw mu ñëw nag teewul nekk l'exception. Modou Lo dafa ñëw nekk koo xamante ne staff bu mu nekk. dañu ay jeunes rek lay àndal ci làmb. te macha allah àgg na fu mu àgg mais teewul dañu baaxoo gis ci làmb ni ko conseil yu mag dafay am solo yenn saay yi mbër ñëw comme Siteu dañ ko koy jiiñ ne des fois ah bu amoon yenn mag yi ci wetam am na làmb ji fu muy toll dina gën a dal mais tey jii nii bu fekkee yow ñi ngay àndal si làmb ñooñu ay xale lañ mooy hmm. sa kër gi lañuy des conseil la wax la la war a wax hmm. léegi boobaa yéen xale yi loolu rek ngeen di appliqué. Hmm. wala wala nee soxla comme mag ñi ñëw feeñ bi nii nii. Hmm. wala yéen loolu soxla. non non ñun fekk ñun dañuy laajte dañ koo gisul rek moo tax ñu koy laajte. mais mais mais da ngay xool Modou Lo xool xam nga gars yi xale rek lay àndal te instant yii kon mooy roi des arènes instant bi. Hmm, moom mooy Mm. waa léegi yow. Euh, daaw ah. daaw da ngeen jublu da ngeen da ngeen da da ngeen jublu ci combat bu combat MMA bu mag a mag mooy seen diggante Ngalani. Ngalani. waaw waaw Ngalani yéen est-ce que xam ngeen Ngalani bu baax a baax. Beuz. Mm-hmm. yaa may dégg. bu baax. ku dul Ngalani. Mm-hmm. rek bu ma bu ma déggee Ngalani mën naa bàyyi MMA. dem continuer si bëri. lu tax yan argument nga xalaat moo tax lan la rëg-rëg ëppalee ngalan yi. benn gars yi dañuy jiwaaree eh, doole ak muscle. est-ce que xam nga lool. muscle. muscle muscle. muscle comme yaram bu musclé. yaram bu musclé non non waxal leneen loolu munoo wax ni non non loolu du fi sax seetaan nga koy wax. bës déglu ma déglu ma rek ma la gis nga jamono ñu toll nii gars yi dañuy jiwaat yaram musclé ah, ak doole xool xoolal Modou Lo xoolal mu toll. waaw. xoolal Lac de Guiers ni mu toll te pourtant Lac de Guiers war naa mën a jàpp Modou Lo baxañ ko te teg ko. non mais yaramu musclé nga wax muscle ay muscle yu tracé muscle yu génn muscle ngalan yi moom. waaw ah. munoo ko comparé sax yu ak yu rëg-rëg yi. waaw moo tax may la Ngalani mis miskil rek kaa fi nekk. ah. semaine bii nii di di nga ne lii dëwul waxoon na ma ko yaram miskil rek la mais doole yoru ko man wax lool ah comme maa ngi soog comprendre yow pour man da nga ni rëg-rëg mu ëpp ay muscle quoi. non non non dama hmm. ñoom ñaar bokkuñu sax. Hmm, hmm. rëg moo ëpp doole. Ngalani mën na kaa gën a rafetlu muscle mais rëg moo ëpp doole fuuf. ah xam naa fi ngay waxee xam naa fi ngay waxee. bu ñu roofoo dem moom jeex na moom bu ñu roofoo moom rëg-rëg dina ko rey. déggoo li ma de. Hmm. même Boucher Sa sax boo dul si combat bi lay jaaree daw. Boucher Sa moom beneen affaire la boobu moom ragal naa ci mais ngalan ñi sax gaa yi nee nañ quarante cinq ans la am bu ko rëg-rëg joxee normalement teg combat bi ci yoon warul mun a metti de. ñun lenn rek wax lenn rek la wax sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ñu ñu yokk ñu ñaan rek. incha allah ñu dolli ñu ñaan parce que. parce que instant bii nii bëree du lii euh, watuñoo ko waa Sénégal lii MMA la bu fekkoon làmb sax. Eh. te yow mën nga ne bu boobaa boobaa du du ñaan danaan que le meilleur nga yow boobaa. dëgg mais lii MMA la. li eh. ñu wax ku nekk rek boo téye sa kurus dog boo rek fasaa la ñu si quoi. am na solo am na Jeylaani Pouy maa ngi leen commentaire yi Bouba Judo maa ngi ñëw ci yow léegi léegi léegi buuba Diallo maa ngi ñëw ci yow léegi léegi bëgg naa la jël Gibson Fall namm naa la trop maa ngi ñëw ci yow léegi Mor Baara Ndiaye moom itam borom Portugal mu may naan bës xanaa bokkatu ci famille bi mais yow ci famille bi nga bokk ba léegi Mor Baara Ndiaye kenn du ci mun a génn. Euh, euh, euh, yow kii da daw. dama am benn question moom dama la ko bëgg a loolu benn waay tàmm seetaan live bi mu ne làmb dafa dese neex. mu ma ne ko làmb dafa dese neex. mu ne parce que làmb dafa bëri dafa manqué spectacle. mooy mbër da ngay ñëw di di ragal a daanu ba tey li nga war a bëri doo ko bëri. parce que suuraale yi dafa bëri. mu ne loolu pour mu denc làmb. mu ne loolu pour mu denc làmb moom day proposer làmb round. ñu ne bu ñu sëggee ñu ne deux lañ jëm. comme tey combat yi mag yi lu ci mel ni Eumeu Sène Lac de Guiers 2 wala lu ci mel ni Ama Baldé Modou ñu ne deux lañ jëm moom loolu lay proposer pour mu nekk une grande révolution ci monde làmb yow lu mel nii rëg-rëg guy gi ñu ne deux leen jëm te yow est-ce que yow loolu bëgg nga ko yow wóor na yàlla ñu ne comme léegi man xam loo bëgg man prévotise na de ne rëg bu daanul trois fois guy bu daanee benn dañ ko jox dañ ko jox victoire rëg buy daan na daan fois yow loolu li nga wax noonu yomb na de. di bës moo xaar la mu leer. Eh. rek bu daanoo trois fois buñ ko jox ndam léegi guy bu daanee benn yoon nañ ko jox ndam. mais yéen kañ yéen tey ji buñ leen seet si woon. Euh, promoteur yi ñu waxaatoon ak yéen d'accord ngeen pour lamb round boobu ñu jëm deux pour amateurs yi gën a gis seen bopp parce que mbër buy jël jëm deux day gën a jël ay risque mais yow yow rek rek lamba bi risque lay jël. non rëg day des fois rëg des fois da koy teg ci temps de des fois day kii de day du jël benn risque rëg day am action bu da koy day def nànk Balla Gaye Junior Brise de Mer Jordan mm-hmm. Mm-hmm. nga soog a ñëw si ñoom mm-hmm. ok eh. Eh. maa ngi maa ngi dégg maa dégg nag waa kër guy yi ñi am lu ñuy wax eh. mais dinaa leen wax leen na nañ xaar bañ pare si ñala ne bu se saabu moom rek ba pare ba fekk corona bi yàlla def mu jeex. Uh-huh, uh-huh. ba ñu war a jàkkaarloo. Uh-huh. guy gi guy gi jéem a jaay nit ñi xelum mag di mu santu. gi de mu ngi liggéey te boole. naa wax moom combat bu mu taxawee ba léegi kenn dégg ko mu wax. bon guy gi waxu fi si Lamine Samba. ah waaw mais ñun dégguñu ko ci internet bi laa bëgg a wax quoi xam nga avant da wax di multiplier sorties yi di kaas. mais combat bu mu taxawee ba léegi kenn dégg ko mu wax mu ngi ci lu xëm di entraîné jàpp ñàmburam. mais bës fii bër mu fi si ña ñoo la si woon site internet yi ñoo la si woon. Mm-hmm. dëgg la mais tey moom buy soxla ka moom nanguwul a ñëw lu tax lool ah bon loolu de yëguma ko. ah mais si yéen soxla yoon ngeen ko pour pour jël ko interview mu bañ. ah yow de kon am nga ay renseignement man de loolu yëguma ko. bës. buzz dañuy waxante li fi nekk. Ah. tey mbër mu fi siiw site internet yi ñoo la siiwal. waaw mais tamit guy gi est-ce que newul ci contrat boo xamante ni da koy respecté ñu ne ko amoo droit communiquer ci benn média. eh mbër dina nekk si contrat sax bu ñaanee dañ koy may. waaw mais moom dafay respecté contrat am rek soxla soxlawul ñaan day toog di entraîner boolewu ko wax. de toute façon moom. avant li kon toll nii xam nga ku guy gi moom amatoo leen dara. doon wax dina doon wër dina. tàpp la dafa ragal. mais signé na combat bi fu mu toll nii mënatoo leen wax daf leen ragal parce que lu mu yàgg yàgg di ngeen sëgg ci géew bi. gu guy bës guy mënta daan rek si àdduna mu wax la loolu tey jii nii nii. Ah, mu leer li ngay wax ni fan nga ko teg. guy gi di mu yor ñaari loxo yor ñaari tànk. am doole. nga ne mënul daan rëg-rëg ci àddina. waaw guy ban mbër la daan. waaw rëg-rëg rëg-rëg dafa musul daanu ci àddina. waaw guy ban mbër la daan daan daan rëg-rëg guy gi mënul daan rëg-rëg. déggoo de bébé jën bu mënee guy gi mënul daan rëg-rëg. déggoo ma de li ma laaj tontu ma si man. déggu waaw li ma la laaj tontu ma si laa waaw ma la guy gi ban mbër la daan. Ama Baldé la daan Ama Baldé la daan. Tyson na Tafa Junior. waaw ak kan ak kan. daan na Tafa Junior. daan na daan na Zos. waaw ak ak Zos Zos bàyyi na bëri. waaw waaw mais waaw Zos bàyyi na bëri mais ñi ma lay limal ñi bàyyiwuñu bëri daan na Bébé Saloum daan na Ama Neex daan na Mbaye Diouf. Euh, guy gi moo ëpp palmarès guy gi sa palmarès guy gi moom mënoo koo tudd guy moo gën a baax rek rek palmarès ci bëri dóor. guy ñaari mbër la fi daan yu tax ñuy wax mbër. Hmm. déglu bu baax li ma lay hmm. te kenn ki bi mu koy daan. Hmm. ah waroon na kaa daan bu yàgg. moog Siteu. Siteu la fi daan si bëri ak Ama Baldé. loolu dama ko jëlale xam nga fu muy toll nii yow yow da ngaa fàtte xam naa ni fàtte woo Siteu fàtte woon Nes ndax Siteu ak Nes yéen a bokk koñ. man dama jëlale ñaar ñooñu man damay limal ñu guy gi daan te ñu nekk ay champion nekk ay mbër confirmé te dëkkuñu sa koñ. bi muy daan Siteu bopp bi dafa toj. imagine toi yow diggante cinq heures ba dix huit ba dix neuf heures sa bopp toj ba vingt heures ngay soor a di bëri. bi muy daan nees nag nees bopp bi tamit dafa tojoon. non yow yow nees ku ko daan si fin carrière nga ko daane. ah nees fin carrière la nees de bu la déggee mer la bu muy daan Ama Baldé Ama Baldé boobu dafa feebar. guy gi doole jooju mu yoroon yoratu ko instant bii di bës dañuy waxante dëgg nag te yàlla tax. Mm. doole jooju noonu instant yi rek moo ko yor. Mm. Ah, doole de dañ koy. bës Dakar. Dakar du saf safa benn boxeur Tyson ah. mu boxe wa daanaka bàyyi boxe sax. pata pata dem ba obèse ah. gonflé boo gisee doo ko xàmmee mu mel ni joué katu film. mu amaat combat bu am solo. combat bu am solo contre Wilder entraîné waat ba jàpp ñëw duma waa ji duma yu metti mooy doole entraîné la liggéey la conviction la Balla Gaye 2 waxoon ni dina bëre bu muy bëreeg Modou dina melaat nu mu mel kenn du ko gëm ay sacrifice la daj. donc bu ni guy gi. bëri na ñu doon Balla Gaye yàqu na nu mu meloon du ko melati mais guy gi bu muy bëriwaat bu muy bëriwaat ak. waaw Balla Gaye 2 bu muy bëriwaat Modou weddi euh, sénégalais yu bëri ah. am na wax bu ñu waxoon bu Balla Gaye simmeekoo jommi nañu mais moom tax ma bëgg la wax ni tey jii bul ne guy gi jeexal na dooleem boobu ndax doole boobu noonu yaakaar naa boo gisee bu muy bëri Siteu doole bu mu indi lu lu mu ci tegaat ci liggéey rek amaat lu mu amoon wala lu ko ëpp. déggu ma wax la déggu ma wax la. yow hmm. da ngay jiwaare gaynde ak a muus. Hmm. Balla Gaye de gaynde la. dégg li ma lay wax bu de gaynde la. kan mooy muus. moom na guy gi ab muus la ñu lu métti xam nga Balla de moom Modou Lo daan ko jara xalaatu mu xalaatul Modou Lo daan ko si kër àdduna moo tax combat mu Modou Lo lu nekk la fiy def. Hmm. mais guy gi si boppam kooku nga xam ne muus la kooku dara jaralu ko si àdduna muy daj li Balla Gaye di daj wax la loolu tey jii ba si doole jam yoroon yoroon. yéen xam ngeen loolu sax yéen yéen journaliste yi Sénégal xam ngeen loolu bu baax a baax guy gi saa bii nii arbitre bee ko fi bàyyi. Hmm. buñ paree si ngalane ak bu sa saa arbitre bee fi bàyyi corona bi jeexee arbitre bee ko fi bàyyi. yow xam nga hmm. loolu bu baax yéen journaliste yi. Ah, bu baax wax kay xaw ma ko li ngay wax kay xaw ma ko boo bëggee taxaw fi naan guy gi muus la koo xamante ne dafa def ay preuve am ci làmb entraîné te boolewu ko wax am dooleem bu ma sëkk di jox làmb àqam. di ko jox làmb ak guy guy bi muy daan sa bi muy daan kii nu tudd bi muy daan Ama Baldé doole jooju noonu guy mas mënatu kaa aduna àdduna. teg ko at yi day dem. nga teg ko fan parce que yow man lu mu bon leen a bës nga xam ka leen ah bës. Mhm. rëg man maa ko mag. rëg ban année la. rëg man laa man man maa mag rëg. rëg 92 la yow ban année nga yow. rek du ko déwén douze rek man maa ko rëg rëg moom yëpp nee moom sa at dañ koy dugal MMA moom bind nañ ni que rëg rek quatre vingt douze la. Ah. MMA moom lañu bind. mais dégguma la dégguma. Hmm. gis nga euh, guy gi ak sos euh, combat wu yaa ngi koy fàttaliku bi ko Zos di def nii muy daanu. Hmm. combat wu rek mu ngi si gaal yi di dem géej. combat wu man maa daara ja man. Hmm. ba pare nag guy dama yo yo yo yo yo yo xanaa yàggoo seetaan làmb. yàggoo seetaan làmb comme. Hmm. Cheikhou Dieng yàlla na ko yàlla yërëm xam nga bu ko Boy Kayré daan Boy Kayré ñaataat la am. waaw. Jules ba euh, euh, Balde xam nga ni moom ak Ousa Sow xam nga ni Jules Balde daan na Ousa Sow. waaw mais gis tey. ñooñu noonu ak rëg bokkuñu bokkuñu. Euh, rog mbalax rog mbalax rog mbalax gis nga bu muy bu muy daan qualifié xam nga rog mbalax ñaataat la am ak qualifié de gis nga tey jii nii. ay qualifié yooyu ngay wax. ñoom ak bokku bokkuñu bokkuñu gëm-gëm si si làmba. Ah. qualifié deux moom qualifié un moom ngay wax ñoom ak rëg bokkuñu ah. parce que rëg bii rek bu ko wóoroon ne mënu see nekk champion billaay du si dugg mun naa naan doo si dugg. non ñu ngi ci làmb ji bàyyi nañ MMA bi ñu ngi ci làmb ji MMA bi que bu ñu waxee ci MMA MMA bi ñëpp dañuy ñaanal rëg-rëg ndam mais làmb ji fu mu toll dañuy toog. pour war a débattre parce que bu nekkee da ko bëgg a. wékk ci mag ak xale da ngay juum. Bombardier daan na fi xale yu bëri. Modou Lo ngi nii amul lu ko làmb jaralul. amul lu mu bëggul ci làmb keroog bu mu ñëwee diggante ma Bombardier Bombardier nekk fin de carrière Bombardier da ko freiné Bombardier gis nga nu mu def. Balla Gaye Baboy. dëgg la bu muy bëree Gris Bordeaux mun nga ne Baboy fin de carrière la ne te teewul Baboy gis nga nu mu def. Gris Bordeaux bës. waaw bës man xale laa de bës. waaw non man man laa man xale de ay affaire de xale mag. jën kay de na ba fu mu entraîné yore yem booy say entraîné gëm boppam làmb préparation la de gars yi magante wuñ fi magante bu tax muy feeñ ci làmb ji de. làmb ji préparation mooy feeñ. guy gi mun na fi préparer. loo bu téye rek rek rek du yëngu. guy loolu loolu mënta nekk bës loolu moom mënta nekk si àdduna. guy gi ah, téye rek waxal waxal mu nekk. mënta ne ak bëggoo mu nekk. non loolu man non mënu la nekk si àdduna. guy gi téye rek rek mënta yëngu. waaye kon rek bu boobaa ma jël sama ngemb waaye ngembali xanaa man maa ko kon man ma jël ngembali. <laughs> nga ñëw gëm ngeen ni da da ngeen daan guy gi avec la manière. rek day daan guy ba toog si kawam boobu boo bëggee dégg dëgg. Hmm. man maa la wax lii bës rek da koy daan ba toog si kawam. Hmm. kon baax na. bindal dégg. Hmm. loo loo loo laaj maa ngi lay am nga li ngeen waxoon bu njëkk da ngeen ne woon da ngeen ñeme ngeen teg seen reliquat pour ngeen xeex xaw ma ñaata minute loolu ay naxe la wala lan la. xoola dañuy teg ba teg lu raw reliquat bu bëggee mais guy du nangoo teg du nangoo teg reliquat am xeex xeex taxaw xeex. xeex nga war de daaw xeex dix minutes wala ma ne xeex dix minutes ba pare door a bëri. ah baax na waaw waaw. baax na baax na. bës baax na bës waaw déggu maa la déggu maa la di nga. gu mm. gu nekk gu nekk léegi kenn du ko jàngal xeex kenn du ko jàngal bëri. Oh, mais la connexion elle est. yaa mauvaise waaw waaw yeggali. ma gu nekk léegi kenn du ko jàngal bëri kenn du ko jàngal xeex aw fit nag da koy judduwaale. aw aw fit da macha allah laak nga lébu de. waaw mu ngi noonu nag ñu ne léb lañ moo tax. <laughs> waaw baax na kontaan naa ci yow yow sa connexion fa am gën baax pour ñu gën a yaatal waxtaan. sa connexion bi fa nga defar ko mu gën a baax. dégg nga. waa tax taxaw ma la tuuti bala maa coupé. waa acca daaneel. bala maa daaneel gaaw. waa parce que kañ kañ ngay takk soxna. sama ndaw laa bëgg indi. Daawud ciao. sama ndaw te sama ndaw te laa bëgg indi. nga ni. sama ndawtal laa bëgg a indi si si soxna. ça ça manque de respect notoire. ok Daaw prends soin